waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah kon gannaaw bu ñu nuyoo mbokki jullit yëpp rek di nuyu mbokki taalibe yi di ñaan yàlla mu yàggal fi Cheikh Mouhamadul Mountakha te di jaal itam waa adduna bépp rek waa ki nga xam ne moom la ñu àndaloon liggéey muy sëriñ Atou Diagne te yàlla jële ko fi ñu koy njëkk a ñaanal sunu borom mu nangu ab liggéeyam te itam mu jéggal ko ay rëcc rëccam te itam mu boole ko daal ci ña nga xam ne suñ boroom day ful seeni yiw ba dara si laa xawfun alayhim wala hum yaxzanun na jooju alquran di wax ci ñi nga xam ne bu nekkalee yàlla ba war fee bàyyi ko suñu borom danaan leen bu leen tiit ci li ngeen dëgmal muy faatu gi ak la say topp waaye bu leen jàq si li ngeen bàyyi gannaaw muy njaboot geek seeni mébét lépp yàlla dañ leen sa nekkal kon yàlla na ko yàlla dëggal ci moom te dëggal ko si mboolem jullit ñëpp waaw ngir seede ci moom nag moom daanaka wax la joo xam ne ñëpp ko bokk xam ndax Sëñ Aatu ay benn bëgg-bëgg la amoon muy Sëñ Tuubaa moom guddeem ba bëccëgam ay ngoonam yëpp da koo jëme woon ci liggéeyal Sëñ muy ku doyloo woon Sëñ Tuubaa itam doon ku amu fit ci liggéeyal Sëñ doon ku jàmbaare koo xam ne it waxtu wu nekk rek eh, jenn yitte la am muy nu muy gën a jekkoo liggéey Sëñ bi nu mu koy mën a gën a rafetale kon si loolu la nekkoon te xam ngeen ne bokk na si li gën a rëy ci lim liggéeyal sëñ tubaa boo xoolee xasida yi def na si jéego bu am solo boo xam ne àdduna bépp euh, mujj na loolu ñu di ko si roy mu tasaaroo bisub sëñ tubaa gi màggal gi itam gis ngeen taxawaay bi si am ak fi mu ko eggalee loolu yëpp itam ci ab liggéeyam bokk na si itam di tuddee ay tur yu sell njabootu sëñ Touba gi nga xam ne léppam moom ay doomam ak yëpp noonu la ko def waaye ñi àndoon ak ñoom sax da leen a toq ci loolu ba ñun ñi ñëpp si loolu lañ xam suñu njaboot waa Kër Sëñ Tuubaa rek lañ koy tuddee bokk na si itam ci liggéey yi nga xam ne def na ko muy lu mel ne toxu si Touba ñun ñi ñëpp daanaka ku si xool la la indi ñibbisi gi Touba yaa ngi ko jaaree ci moom kon biñ ñëwee itam mu daal di gar am ngàngam ci daal di laaj suuf su yaatu ba ñu mën a dëkk ak moom kon biñ see jàppe nañu si dëkkin wi loolu lépp ci ay liggéeyam la. te yonent bi sallallahu alayhi wasallam itam daa waxoon ne nga jubal kenn nit rek ba mu nekk ci njub moo gën àdduna ak li si biir nga am ko def ko ci yoonu yàlla kon moom nekkoon na di liggéeyal sëñ ci taalibe yi ci ñu mën a xam kuy sëñ Tuubaa ñu mën a xam lan la sëñ bëgg di góorgóorlu loo taalibe yi ci bëgg sëñ Tuubaa ak yaakaar ko kon daal liggéey na ci waar wi waar wu yaatu woo xam ne ñi ngi ñaan yàlla mu nangu ko te ful ko te itam bu ko fulee ba pare it mu def ko muy taaba joo ne dootu dagg ba faawu gannaaw ñëpp xam ko ak sëñ Atou ni ko sëñ Mountakha waxee ndax euh, yoo ñëpp ay jàmbaar daara ji moom ay jàmbaar rek la fi yàlla dajale waaye moom itam ku nekk xam na nag nu mu toppe woon sëñ Atou ak nu mu ko nangulay woon ak nu mu ko déggale woon ba moom ku ne mën ngaa jàpp bis boo xam ne da nga naan déggante diw ak Atou waaye moom monsieur Souta gis mu am ak wuute ak moom ba yàlla def liggéey bi ñëw si loxoom kon yàlla na ko yàlla woyofal te may ko si ndam te am nañ ci rafet njort ndax yëfi la